إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته يقول جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaanit mu jéggal na suñuy rëcc rëcc bàkkaar di ko ñaan moom yàlla mu gindi ñu teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim moom mi nga xamante ni képp ku mu teg ci boobu la yoon texe nga yàlla ñu yàlla boole si ñi may teg ci boobu yoon waaye képp ku mu seetaan ci maandu téem ba nga jàdd woowu la yoon amul kenn ku la mën a jubalaat ñu ngi seede ni amul kenn ku yeyoo jaamu ci dëgg ku dul yàlla moom subhanahu wa taala te ñeelul ñu koy bokkaale kenn moom mi jurul kenn te kenn juru ko moom yàlla subhanahu wa taala mi nekkul naw la ci kenn ñu ngi seede ni suñu sang muhammad alayhi salatu wasalaam jaamam la ndawam la tànneefam la yàlla na yàlla fayal ñu ko moom ak i saxaabaam ak képp ko topp ci yubam di rafetal booba yàlla subhanahu wa taala di doon suufam si mbokk ñuy dénkaat suñu bopp di leen dénk ragal yàlla ak topp ko nim ñu digalee lii di ragal yàlla ci béréb yu bari ci alquran mu wax ci aaya bii ni ay yéen gaa yi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rikk bu leen faatu mukk di dellu si ci man lu dul da ngeen wommatu dooni jullit mbokk yi suñu xutbay tey bi iznillahi taala ñu ngi ko fas yéene amal ci tomb bi ñuy wax al iktaaru min dikril mawt mooy di bari lu ñuy fàttaliku lii di dee mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay waxam moom ab jullit waru koo jële demi mesure wa ma aataakum rasul fa xusuuhu la yàlla wax lu mu leen indil moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni leen def leen def leen wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu mu leen ne bàyyi leen tamit sori leen ko moom alayhi salaatu wasalaam moo daan di waar ñii di saxaaba yi radiallahu anhum waaye mu bokk ci lu mu leen daan ëppal lu mu leen daan waar di leen ko fàttali mooy lii di dee mbokk yi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci xadis mu ni akthiru min dikri haadimi laddat mu ne dee leen baril lu ngeen di fàttaliku lii di dog bànneex li lay fekk ci sa biiri njaboot jël ku la neex ku ko neex te du tàggoo soxlawul konturaan bi kii ñëw fekk la sa alal mu taxale la sa alal ak alal ni mu saxee ci xol kii ñëw fekk la poñetu àdduna place lu mu mën a doon taxali la taxali la ak moom del loola ci sa boroom yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na dee leen bari lu ngeen di fàttaliku loolu nga xamante ni mooy dog bànneex yi muy dee moo tax alayhi salaatu wasalaam dafa bokk ci ñaan yi mu jàngale ab jullit di ko ñaan bala ngay tëdd mu ni bismika allahumma amuutu wa ahya nen na nga wax ji wax laata ngay tëdd wax ji du ñaan kese waaye lu lay fàttali la lii di dee mooy yow yàlla ci sa tur ci lay faatu ak ci lay dekki bi maanaa olof day lépp li nelaw mooy rakki dee ana ñaata ci doomu aadama ñoo tëdd di nelaw jaari fa dem ana ñen ñoo fa jógee yeewuwaat waaye rey nelaw moom képp ko def rek fàtte nga si lépp lu bokkoon si yow moo tax alayhi salaatu wasalaam ne ñaan leen ñaan ji ñu roy sunnaam waaye mu leen di fàttali lii di dee ci ñaani ba tey mu ni bu ngeen yeewoo bokk na si ñaan gi ngay ñaan nga ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur maa ngi sant yàlla bi nga xamante ne moom a dekkil kon da ngaa faatu woon ginnaaw bi nga xamante ni nelawal na la ba yeewuwaat ak jàmm waaye yàgg yàgg ci moom lay dellu kon lii di nelaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak jàngaleem ci ay azkar di ay ñaan mu ngi lay fàttali dee booy tëdd ay booy yeewoo it mu ngi lay fàttali dee ndax mbokk yi li nga xamante ni mooy dee moom du ñëw lu ci mbetteel al mawt laa yatti illa baxtatan kenn yàlla da koo boole ci kumpa yi kenn xamul fan la kenn xamul kañ la kenn xamul naka la waaye lu ñuy waajal la yàlla bu ñuy faatu mu fekkuñ ci lu neex yàlla subhanahu wa taala ak ngërëm mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wa salaam ci njàngale mi muy wax ni fàttaliku dee dee dafa am ay njëriñ ci fàttali bi nga xamante ni jàmm bi da koy fàttaliku lii di dee jëriñ gi ci njëkk mooy fàttaliku bi ngay fàttaliku lii di dee day defaraat sa pas-pas sa gëm yàlla ci lépp looy def ci xeetu jaamu yàlla rek da nga koy def ba mu mel ni yow léegi nga faatu ndax xamoo kañ la julli bi ngay julli xamoo ndax waxtu ko ca topp dina la fekk wala njaboot gii nga tàggu sax dem xamoo ndax boo demee di nga dellusiwaat ci ñoom loolu di sax ci yow ci sam xel saa su nekk booy dox loolu day wéral sa lii di sa gëm yàlla sa pas-pas moo tax mbokk yi alayhi salaatu wasalaam ba tey di ñu wax lii di fàttaliku dee njariñ bi nga xamante ni moom la am ci jullit bi kenn ci salafu saalix dafa waxoon ni man akthara min dikri l mawt ukrima bi thalathati ashyain képp koo xamante ne bari na lu muy fàttaliku lii di dee mu ni kooku de dina am ñii di xéewal ñetti xéewal yi bis ñu njëkk mooy taajilu tawba fàttaliku bi ngay fàttaliku dee daf lay xirtal saa su nekk ci ngay ngay tuub di dellu si yàlla lépp loo def muy safaan rek nga gaaw tuub ko ngir yàlla jéggal la ko mu ni benn ñaareel bi ci lim lay jëriñ mooy qanaatul quut mooy daf lay taxa doylu da lay toxo doylu di fàttaliku dee saa su nekk day tax nit ki mën a doylu lu mu am rek moo xam ne lii la ko yàlla cërale ci dund ñetteel bi mu wax mu ni wa nachaatul ibaada daf lay tax a xiirtalu ci lii du jaamu yàlla yi waxtu julli bu jot kenn du la ko gaaw julli ji ndax xamuloo ndax bu ma ko yeexee dee mën na maa dab ci diggante bi du lenn àdduna loo xamante ni dina la téye ba ngay faat boobu lay jaamu yàlla foo déggee koor kenn du la ca jiitu foo déggee saraxe kenn du la ca jiitu foo déggee lépp luy juxa tayaaba kenn du la ca jiitu muy ñetteel bi mu ne nag wa man nasiyal mawt képp koo xamante ne moom àdduna bi laxas na la ay buumam ba yow ab dee bu nga koy wax sax tax lay déranger bokkul ci say mbir ngay waxtaane dee mu ni kooku de xañ nañ ko ñett yi mooy kooku yéex a tuub la lu mu def xelam du nekk sax ci tuub ko ndax moom dee moom jàpp nañ daal dee moom dee rek daal dégg ko sax moom bokk na la koy dérangé ñetteel bi mooy ci li mu ko yóbbee wa tarku rida bil kifaaf mooy ni du gërëm dara taru doy lu mu lu mu am rek mu ngi xalaat lan lay amaat lu ci yokk ñetteel bi mooy atakaasulu anil ibada mooy kuy sàggane werum ja mbirum jaamu yàlla la match su tel match football jot ci waxtu julli moom moom match bi mooy time bi muy jël waxtoom jox ko ba mu jeex soo ko dem wuy ji yàlla ci xayya ala salaa gi ñu ko wax ak xayya ala falaa kooku moom mbirum jaamu yàlla bu mbirum àdduna mbirum caaxaan taxawee mbirum jaamu yàlla bi mooy ñëw deuxième sous position ginnaaw bi nga xamante ni topp na mbirum àdduna ba mu jeex mu soog a dublu li ci jaamu yàlla mbokk yi dafa bokk ci njariñu fàttaliku lii di dee mooy dafay tax jaamu yàlla bi am kersa saa su nekk si digganteem ak borom am kersa bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam di jàngal saxaaba yi dañu ko ah ñun de foog nañ ni am nañ tuuti kersa alhamdulillah mu ne leen kersa bi dox ci diggante jaam bi ak mbokku jaamam wala kersa bi nga xamante nit ki da koy am ci boppam ku mel ni Ousmane ibn Affan radiallahu anhu moom daa amoon kersa ba du xool ay cëri boppam kooku foofu la kersa yam ci nit ki moom ak boppam mu des kersa nit ki ak moroomam jomb koo def loo xamante ni da ciy am yeddaange waaye yonente bi alayhi salatu salaam nee na waxuma boobu kersa de kersa sa digganteeg sa boroom yonente bi alayhi salatu salaam ne mooy nga am kersa ci li jëm ci sa bopp li féete sa bopp mooy outil yi la yàlla jox muy sa bët bi ak sa dégg ak sa làmmiñ bu ci nekk muy outil bu la yàlla jox nga war sa jaamu yàlla nga rus cee def loo xamante ne day jur mu rëy mooy yàlla mu ne loolu mooy am kersa ci say say bët ba doo ci xol lu xaraam sa dégg doo ci déglu lu xaraam ak sa làmmiñ yi doo ci àddu lu dul loo xamante ne lu lay jural liw la waaye doo ci àddu loo xamante ne luy jur ay bàkkaar la sa gémmiñ doo ci dugal lenn loo xamante ni lu daganul la muy jàll ci sa biir lépp looy fàggandi ko rek ngir lekk ko loolu loo xamante ni luy dagal looy nekk mu ne leen tamit ba tey ci kees saw ci sa diggante ak sa borom ginnaaw cëri nekk ci kaw mun la cëri nekk ci suuf mu ne sa loxo yi sa tànk yi ba ci sa sa say sa say cër yi nga xamante ni mooy say awra nga ciy def li nga xamante ni mooy li yàlla digle li dagan ci loolu nga bañ cee def lenn loo xamante ni lu xaraam la lii mooy am kersa sa diggante sa boroom te fàttaliku dee day tax ba saa su nekk ngay muraqaba di contrôler sa cër yooyu ngir nga cee def loo xamante ni lu yàlla gërëm la aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala bi julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi seede ni amul kenn ko yow jaamu ku dul yàlla te yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla du wàccee woon beneen yonent ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi suñu taxawaay ñaareel ba tey ci lii di ak ixtaaru dikril mawt di bari lu ñuy fàttaliku lii di dog bànneex yi muy dee bokk na ci lii tax jullit bi wala way gëm bi muy suuxat ci xolam ak gëm yàlla ak ragal yàlla ak di waajal saa su nekk dee di ko bàyyi xel mooy mashahidul muxtadirina wa hum yuaanuuna sakaratu lmawtu wa taflihihim shahaada mooy di baril wala bu la yàlla defalee nga fekke koo xamante ni dafa nekk ci sukuratul mawt di sukuraat te muy jamono joo xamante ni li des a jaam bi ci mu tàqali koog yow fii ci àdduna dem wujji boroomam mooy diggante boobu te yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni képp koo xamante ni sa mujjantalu wax kaddu mooy laa ilaha illa allah da ngay dugg aljanna moo tax ki nga xamante ni dafa nekk ci sokratul mawt ci sukuraat kooku daanaka la muy gis bokkutul ak la mu daan gis yonente bi alayhi salatu salaam nee ne dee leen talqiin koo xamante ni mu ngi topp ci toll ci boobu lay jamono kalimatu laa ilaha illa allah bu doonoon koo xamante ni ku saxoon ci zikrullah di tudd yàlla fu mu nekk di tudd yàlla ca ba muy wér di tudd ci yàlla ba muy am jot di di tudd yàlla ci ci bànneex ak naqar di tudd yàlla saa su nekk kooku boo koy jox sabaat boobu laa ilaha illa allah day yomb ci moom mu tudd ko bu ko tuddee rek bul waxaat bàyyi koog cellam ngoog mu ni cell ba mu waxaat geneen wax ndax dina toll ci mar boo xamante ni yonente mi alayhi salatu wasalaam neen boo ko joxoon jéeju adduna bi da koy naan ndax fa muy toll ci mar bu laajee lu mel ni ndox ñu jox ko ndox mu naan sawaat ko baat bi laa ilaha illallah bu ko waxaatee noppi yonente mi alayhi salatu wasalaam ne ne kooku de képp koo xamante ni nekk na say kaddu bu mujj kooku bu deewee biir aljana ko yàlla dugal ko mbokk yi xoolal mbokk mi moom bari lum daan tudd yàlla ak it jekku baat bi ndax baat bi yàq nañ koo yàq koo yàq koo yàq ba laa ilaha illa allah moom lañ weccoo lay lay la laa lu xew ñu ne lay lay la laa laa ilaha illa allah muy kalimatu tawxid yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na baat boobu buñ jëloon balance teg ko ci jël lépp asamaan ak suuf teg ko ci beneen balance baatu laa ilaha illallah da koy wat ndax baat bi ni mu amee valeur muy kalimatu tawxid kennal yàlla kii da koo tàmma wax tàmma wax tàmma wax ba nekk ci sakaratul mawt médecin bi tiim ko nekk koo xamante ni ku xam nag mbirum islam nag mbiru diineem ni ko laa ilaha illallah yàq baat bi moom mi nekk ci sakaratul mawt moo ne ko laa ilaha illa allah allahu akbar moo nekk kaddu bu mujj te dafa dafa dafa dafa jubbanti daa jubbanti ki ko doon sax ngir yóbbaale baddoo nga moom la saxoon di ko di ko zikr waaye di ko dund ci xolam muy baatu laa ilaha illa allah mbokk yi bokk na ci di fàttaliku dee fa mu yóbbu doomu aadama bi ci li ko jege mu war koo di ko di ko di ko topp ngir mu koy fàttali dee mooy di ziyaare ji xabr yi di dem ci bàmmeel ci armeel yi mbokk yi ñaata nit nga toogal di waxtaan ak moom dara jot ko mu jékki-jékki cinq comme sa kanam yéen a toogal léegi di wax ñu jël ko yóbbu ko waajal ko sang ko lam doon sol lépp dañ ko koo summil duñ ko bàyyi ak jaaro lépp loo xamante ni wërsëg la woon fi la koy bàyyi lépp lañ koy tekki laxasee ko ay perkal yonente bi alayhi salaatu wasalaam am jàngale mbokk yi dañ koy bàyyi xel nga fekk yow fu ñuy waajalee ku dëddu summi ko sang ko te lu ko jiitu moom moo daan defal lépp boppam ñu waajal ko teg ko sa kanam jullee ko mbokk yi est-ce que lii jar na sax di ko wax ak a waxaat ndax saa su nekk ñu teg suñu bët léegi yóbbu ko gas ba mu xóot ngay gis ne diw mii loom lañ laxas nii daal di ko yoor ci biir bàmmeel bi la ko la doon wërsëgam lépp mu ngi ko wër njaboot da nga ko wër wërsëg mooy lii wër sa sëg loolu dul yóbbaale sa bàmmeel lul say jëf ñuy jël benn par benn di la suul di la suul amul kenn ku naan la sa mbokk yi nañ ma suulaale ak moom ñëpp ay delluwaat ci kër gi wa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun léegi moom da ngay ñëw ci ci bàmmeel ñuy waajal daanaka ca jullee ga sax lan nit ñi naan man nañ gaaw daal te kii wallahi dese lañ ko loolu ay simili yu néew ngir ñaanal ko nga waroon faa nekk yow teg fa sa position ni man su ma fi nekkoon jamono ji li muy bëgg mooy ñuy seede ci man di ma ñaanal yóbbu la ñu naan nañu gaaw pare nañu gaaw bu mu paree egg bu ñu eggee ci kër ga def la ñuy def maanaam suul suul suul suul suul subhanallah am na mbokk moo xamante ni dafa xool koo xamante ni ku mu doyoon la ci pas-pas xool ko xool ko xool ko ni ko diw maa ngi lay ñaan bis bu ma faatoo ba ñu waajal ma ba yóbbu ma ba suul ma leer na ma ni man bu ngeen di dem dem rek ñu may joxaat sama ruu di ma laaj ay laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la waxee ni seen mbokk yii ñii mu ngeen ko wanee ginnaaw na ngeen ko ñaanal ndax dañ koy laaj na ngeen ko ni allahuma thabbit mantiqahu inda al masala yow yàlla yàlla nga dëgëral la nga ñami ci laaj ñu ko war a laaj mu ne ko kon li may ñaan yow buñ ma dencee ba ñëpp di dem yow na nga mujj ci man te nag ma ñaanal loo ko dem mbokk kooku bàyyi na xel ni moom day faatu àdduna bi saxu fi te bu demee borom bi subhanahu wa taala dina ko xisaab mbokk yi yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci li mu jàngale ci loo xam ne daf lay fàttali lii di dee te du jaas mu ni ngay bari looy jàng alquranul karim rawatina ayat yi nga xamante ni daf lay fàttali dee yàlla yàlla defal suñuy xol yi dëgg dëgg dëgg ragal yàlla teg ñu ci yoonu siratal mustaqim te faat ñu ci yàlla yàlla sàmmuñu sàmmuñu suñu sàmmal ñu suñu pas-pas sàmmal ñu suñu njaboot ci lépp loo xamante ni mi ngi fëkkaate ba nit ñi seen xel nekkatul sax ci dee jël àdduna bi jàpp ni rek fii moom mën nañ fi sax sax wala bu ñu deewee dee moom après amul wallaay dee am na waaye ginnaaw dee am na la ci neneen lu ci xew rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
Thank you.